ginnaaw ay at yu takku ba ñi am jafe-jafe ci seen wàllu dëkkin te lenn waralu ko lu dul inondation yu métti yoo xam ne mi ngi doon am ci jamonoy nawet bi loolu njiitum réew mi président Macky Sall ginnaaw visite bu fi Mamour Diallo amaloon mu jël ci ay matukaay ngir def fa ay canalisation ba mu man di évacuer moomi leen ndox ba jàppandal dëkkiinu population bi nga xam ne ñoo nekkee ci gox yooyu la loolu tax Bassirou Gueye nekk ci LDR Yeesal jot fa amal ab doxantu ngir fësal taxawaayu boobi la ngir travaux yi nga son excellence le président de la république joxe woon na ay instructions ay services pour que ñu mën ko ko réaliser je pense que ni de 2020 jusqu'en 2022 yakarna naa ni Nguiranéne traverser na ak quartier yi ko wër yépp ay jafé jafé bi lolu amé président gis ni war nañu mëna a naka lañu mëna jappalé yenn quartier yi ci assainissement bu normal mo waraloon mu joxé orientation nous avons enveloppe de 23 milliards ci le programme d'urgence pour nous. waroon def le directeur Mamour Diallo def déplacement avec les autorités de la ville et les autorités administratives yi fi nekk ba Nous wër travaux dans les prochains jours dans les prochains jours a dit fii ñu taxaw ku ne gas nañ ko def nañ fi ay travaux yu am solo ba suul ko. milliards yu takku yi ñu jot a def ci bërëb yooyu ci wàllu assainissement ngir jàppandal dëkkiinu askan wi dëkkee ci gox yooyu le loolu Bassirou Gaye di xamle ne lu ñu war a fësal ngir xamle taxawaay bu am solo bi nga xam ne état bu Sénégal jot nañu ko ci amal. li tax na ñu ñëw il fallait que ñu ñëw teel ko woon askan bi ba ñu xam ni lii kat état du Sénégal moo ko defal askanam fii ci Touba. ndax buñu xolé bañu sul ko nit ñi duñu xam liñ fi injecté ci ay milliards té entreprise bi nga xam nit mo gagné marché bi aussi c'est une entreprise à féliciter et à encourager ki taxaw ni ci suma wette borom kër la ku ne xam na li mu daan daj fii ay millions la investir ci këram mais bu nawet musaana jot kër gi dootu ko mën a utiliser dootu ko mën a pratiquer te def ay million ci sa kër nekk jeune di investir ci dëkk bi ay gone di ci liggéey soo demee ba fa nga dëkk mënatuloo fa dëkk ndaxum ndox ku la ca génne war nga koo sant war nga koo gërëm. Amary ma nekk kenn ci borom kër yi doon dund jafe-jafe yu ni mel di dëggal kàddu yi Basirou Gaye yile. ma gis machine bi gas ñëw. ma dem ba ma de bain mm-hmm. daan ne bii mm-hmm. bii da koy gaañ bii tànk du bii bii da koy gaañ mm-hmm. man nag sant dong laay def barke Serigne Saliou Mbacké waaw man ni ma sonne fii ëpp na sa man ab douche musuma ko am nawet mm-hmm. sangukaay musuma ko am nawet dara musuma ko am bu may lekk ca kaw laay dem bu ñuy def lépp ci kaw dem am na loo xëy xel àggale na ko kon nag ki ñu lii nañ ko sant wax dëgg yàlla te yàlla tax rek sëñ Mamour Diallo maa ngi koy sant bu baax a baax wax dëgg yàlla ah ma ne kontaan naa. Modou Fall di xamle ne ku xam coono yi nga xam daanañu ko daj ca jamono ji président Macky Sall taxaw ngir a teggil leen lu ni mel ci taxawaayu Mamour Diallo loolu ñu ko fësal ci kanamu Sénégalais yi biral ko ba ñëpp xam ko. son excellence président de la république Macky Sall liggéey bi nga xam ne mu ngi koy attamé fii ci dëkk bi bi. ñun ci nga xamni yag nañ ci dëkk bi xamoon fi dégg bi ni meloon ak conséquences yi fi am yépp tay liggéey biñu fi gis motax tay ñu taxaw né dañu gënd pour waré ko ndax lii mënuñu ko défar ba paré diko ko duñu xam milliards yi fi président def ci ndimbalu Mamour Diallo kon nak mo waraloon sun téway bi tay ñu ñëw taxaw fi pour wax vraiment liggéey bi sant nañ ko ci diko ci gërëm dal comme niko Bass waxé rek fi ay grâce à Mamour Diallo aussi le bi fait ko jox mu fait, ci taxaw ci def moo tax ñu ne nag lii foog ñu taxawal ko wane ko. kon ñu ngi sant son excellence de président Macky Sall mais di ko xamal ni directeur Mamour Diallo bi mu ñëwee li mu digalante woon ak askan wi la mu waxante woon ak ñoom ci wàllu assainissement pour sauver ñi ci ndox mi ci nawet bi moom ak son ministre de l' intérieur Antoine Diome ci plan Orsec bi je pense que ni tey jii ñu ngi ci phase réalisation bi ku ne gis na li fi ne fii ñu taxaw ay canal yu mag a fi ne. tracteur bi fi mu taxaw canal la kon war nga xam ni liggéey bi am na assurance du lii rek la ñuy wër di xool ci weeru koor ku ñu gis xam ne tennis sport lañu sol mais dañuy sport di xoolaale lu ñu gis nag danañ ko wane lii nag président defal na ko waa Touba defal na ko waa Ngiraneen kon nañu jatu fa yéene ànd ak moom ba fu mu bëgg a yemale boppam ñu ànd fa ak moom te loolu la ñuy def incha allah. mu nekk ay travaux yu nga xam ne jàpp nañu ne su noppee dina dimbali bu baax population bi nga xam ne ñi ngi yeewoo ci gox yooyu le ci jafe yi nga xam ne daanañu ko am ci inondation bi ci jamonoy nawet bi vision.com la crédibilité notre credo Cinevision.com, world vision.com. C'est une kumpa tàggoon